ba may naan di bég may neexal jotaay di lii yomb te maa neex a seddale may li sedd lool te neex ma ànd ak cafkaat tey mën a bégle bëgg ngeen ko bëgg naa ko punch orange ananas punch

예. 예. 나가요. 요. 아, xamoo yeelaa yow. yeelaa. xamoo ko. xanaa yow bu nga jàng bu nga jàng seen école kenn jàngul la yeelaa. histoire yeelaa kenn xamoo ko. yow ñoom bi yow lan la. xamoo ko lantinoo la. gën nga soo jaa affaire tubaab boo koy ñoo leen gën a set fuuf ñoom bu ñu gën a ci def musuwaay la ñuy jël te ñun ndox lañ jël. bu fi jaa toog fii fi nguy fekk moom a la gën a lew fuuf waaye yow laxasoo toogoo yakoo balewoo dafoo dal naa la ngay sëy ci kër naa la ngay toog toog su ngay jéem a toog ci kër ñu a fekk fi nekk dégg nga te et puis booy et puis booy yow booy la mooy ndey sama jawal ah nga koy jéem a tapas xanaa déggoo fi kaw man bu waxee laa eh eh, eh. Eh, eh dama ne nga bàyyi ma. Eh, tuuba eh, bàyyi ma tuuba tuuba bàyyi ma laa la. waaye tuuba bàyyi ma sama jaaw bu ko laal sama jaaw. tuuba sama jaaw bu ko laal dégg nga sama jaaw. sama jaaw bu ko laal dégg nga yow yaa ne waaye booy yi nga xam ne ay suñ noppee rek yéen ñii ñaari taay affaire tuwaay naa la lay leew sama jaaw soo ko laatee am sa sa kese laa dundee passar nada. Senor Ariel. amul lu ñuy sëy. suy sëy demee na te sëy bi def ko ay égar ak di ko bule. waa jaww. waaw maa ngi lay bule. waaw rek lancement bi la. loolu mooy lancement xam nga lancement. lancement mooy pour pour mu waay commencé. ñu waree nii xeex gaa dóor fàcc kat kat kat ñu def nii waaw. tuuti. waaw loolu ay lancement. waaw baa ngi ñëw na. Mm-hmm. awa jawal ku ku ci laabalaal. Mm. moom man rek ngeen cekkat ma ci rek man fekkewuma gisuma laaluma jegewuma man kii laa bëgg a xeexal kii heure bii gisoo ma koy teg nii tiyaaba ji di yokk bu ma neexee naan ko wala ma lekk caakiri bi waaye duma ko laal fenn xaa ñu ne allahuma lakkar sul rek ma ne ko kelbet meew piir bii loolu li ma jox man moom laa bëgg a cookil man sama yoon nekku ci bu ma ci benn greffage laal greffage a ñàkk ngor xool ko xolo greffage greffage comme mbaxana booy xeex mu ne coppet def ca ca garab <laughs> rafet rek la lay dimbali rafet waaye bu desee lu dul coono mu teggee ko demal dugg ci biir nopplu moo fi wedd gën a neex laal sama benn Youssou Ndour ci wet ji waay accompagné ma wuyaay wuyaay doon dama dem de jël lii dañuy dem de demal wuye ah aywa aywa am na beneen demal <laughs> araamul de ah fiis ah. gis nga lii ngay déglu ci weeru koor ah. araamul nii laa ko jàppoo ngéwal la du ma wéet ngéwal la dañuy bëggee. jeex takk te man nga nii nga may jeunes hmm. dama am punch. waaw nekk en convergence. ma ne ah quoi waaw ba koy toll fee laa lay jeune wala punch foofu. yaa ngi um suba. waaye yow li lan la fi. loolu loolu la. punch waaw. am punch. mu dugal lii ci biir kër gi di ma tuut ci man. allo punch bi dañoo wóor. boo génnee rek. maximum de cola. maximum de. cola. boo génnee rek ci cola la. merci waay. merci waay.